waaw kay mbaay vidéo bi nag man soxna Mbodia Mbaye te dama cee ñëw ak jeej ji tey nag jeej ji laay faral nag tey jeej ji laa far te xoolal du far sax wax dëgg la dafa am baat boo xam ne njëkkee nga koy wax ci biir kër goro di ko wax ci biir kër kii suñu jàmm lu am defal ko eh jàmm lu mu am du ko defal te mu nopp ko jëlee ko ci kër andi ci kër yàlla mëne ko gan eh kan jàmm li da ko war a defal ba mu neex eh xoolal jabar ku takk danga koy yor soo ko mënee te yar ko danga koy bëggal ba mu neex jabar yàqal doom yaral sa jabar danga koy yàq ba xoolal tarkalal dara dutul fees ba tam du mën nga ko am nga ko mais dafa lan moo tax nag léegi jigéen joo xamante ne tarkalal sa jëkkër néew na nga toog di muñ du ñu gis la ngay muñ yow daal bu naan eh, lu sama kii yor seen càmmañ yor defal ko te bu naqaree mu toog di muñ a seen càmmañ du ngeen wax loolu laa <laughs> ilaaha illallaah e eh, mboo jëmbaay ni nii faruma fenn dëgg rek la yàlla bëgg sëy li ci nekk dafa karaw nit a nga yor lu dul jeex jëkkër mu yor lu dul jeex laa la wax ci biir kër teg ko ci condition yu métti yoo xamante ni am am ba yéen a koy gis yéen yéen jëkkër yaa goro yéen a koy gis waaye kee nañ ci ay xal toog eh xoolal tu ñu gilam lang na waaye watul góor ngi ne yor lu ne gàññ ci biir kër xoolal ci jabaram lekku ci naanu ci eh laa ilaaha illallaah li may wax maa ko xam xoolal nit la yor na du yorul dara góor yor jabaram ci condition yoo xamante ni tarkal la du ñee ko yor xoolal yor taxut a joxe góor a ngi ni lu ne gàññ te balaa jabarama am sonn nga boole ca nag jeeg bu ragal bi yow boole ca nag tarkal la di foraatu di boole say buyee ki daqaar dara say njëkkee see goro ndax bëgg a sëy te pourtant ñoom xamuñu la nga leen di dara fu mu jógee pour ñoom seen jàmm na leen ko jox <laughs> eh, eh, eh, réer nañ wala dafa am loo xamante ni ci biir kër yi di gun gun te dafa jot pour ñu xam ko jéeg ju ci bëgg a sëy te mën na sëy lool te bëgg seeni jëkkër ñu ngi toogaale loo xamante ni maari day taale eh, ku ko wax xoolal àdduna tukki kon nag bu mittee jéeg bi toog muñ ko kon bu neexee da ngeen koy bàyyi jëkkëram mu dund kook moom jabar ku ko yor te mën ko danga koy taral or jombu sa jabar samra sa jombu sa jabar xoolal kër gu rafet jombul sa jabar moom nga takk andi ko ci kër gi jële ko kër bàyyi du juróom moom ay doom eh, xool loo am defal ko jomb ko te xool jigéen ku ko teral yàlla teral la laa ilaaha illallaah lan jigéen ku ko teral yàlla teral da nga gis nag jigéen joo xam ne ci baraag la dëkk gën a dal xel ka nga xam ne man ci air plus 4 esprit 4 saa tax nga neex le air plus 4 yii taxul nga neex saga fi ne jegañ ci biir kër ni faraax di sëy ngeen koy gis muy taal otom di dem ak a ñëw ngi nekk jëkkëram ji taar kàlla di faji soxlaa ngeen defe di taar kàlla lépp a neex bàyyi eh, laa <laughs> la ca neex bariwut daa bari sutura ni patak moom toog di ko muñ yow njëkk xamoo yow goro xamoo jeeg ba toog nag lu wadd mu daw defal leen ngeen defe ni seen poosub càmmañ lay jóge ba tax ngeen tong tongal ko xoolal la neex àndul góor ngi yor lu dul jeex tara jabaram ba mu neex tarkalla góor yi tari leen ngi fi waaye góor ngi yor lu nekk gaañ te jabaram du ci lekk ñaar dërëm góor yorul dara te mu am da bokk jabaram da leen bàyyi xel ci loolu say yére dafa am loo xam ne kumpale ci biir te kenn mënu koo wax ay a ngi fi ne di ko muñ carrément tey nag nee naa leen weer wii vidéo bu ci génn rek xoolal jigéen ñee ko moom ndax tout le temps damay wax na ci jeeg jéggi di wax ci jéggi di wax ci jéggi nu ñu war a sëyee tarkalla mais am nañu ci bëgg a sëy mais xoolal seeni daal lañ kal te summi talu ñoo toog talu taxaw njëkke ni déet goro leen déet naa sama càmme ñoom am defal ko e jabar ko ko takk loo am defal ko boo ko deful koy defal yéen njëkk yi kaas loolu seen càmme ci biir kër gi na leen da mën a jariñoo bu ngeen fi toogoo tey bi ilaa yow mi diin du yàgg ba ñu sëyee gi mënuñu leen a jariñoo da ngeen di def ci càmmañ yi ñeneen ñu jariñoo leen te càmmañ ñeneen ñoo ngeen di dem ñaan ngeen yàlla su ngeen demee ne seen càmmañ yore jabaram càmmañ ñoo yore leen ko seen yore leen ko yéen xoolal lu baax ku ko ku ko am téye ko te xoolal lu baax sëy nag sens la du soir sens la fu ko yàlla tudd ba mu am fa tarkala la fa fekk mooy sa sens et bu neexee mooy sa sens bu naqaree mooy sa sens taarkal la te xool jigéen ju ci yàlla booleen nag nga sëy koo xamante ni taarkal la ni loxoom jotul ginnaawam nga toog fa di ko muñ taarkal la njëkkee xam ko ne pat goro xam ko ne pat xam ni jëntaan mel ni nga toog fa di ko muñ bés bu neexee nag ñu daalee tongtongal nag yay yaay ku ne cam bi teddu naram yóbbu daal ni taarkal la ñu am defal ko e eh, xoola ku takk sa jabar lu am defal ko góor ñi ku ci am dara la sa jabar nag ndax lu nga ñu teral doyut te xoolal lu nga ñu teral nag mérito nañ ko tarkal la dee ñu bëggal ba mu neex ñuy bëggalante xoola bëgg neexul bëggante neex sëy yi ngeen dugal njëkkee goro yi ñu koy penc tarkal la goro la moom jox ko ba mu doy njëkkee la moom jox ko ba mu doy ndax c'est la famille mais jabar tamit li nga séq ak moom def ko tuddee mën nga ko góor ñi lii laa leen di baaxee vidéo bi ndax jigéen ñaa ngi koy jooy ci digg réew mi ne tarkal la te dafa jot na ngeen xam ko yéen góor ñi ndax am na lu bari luy xew ci biir kër yi tarkal la te yéen góor ñi xamoo leen ko te dafa jot na pour ngeen xam ko soxna Mbodia Mbaye moo leen koy yeggale di leen bëggal jigéen ñi lu ngeen bëggal jigéen ñi doyul ndax yéen am ñu bëgg leen ngeen bëgg li mooy vidéo bi beneen yoon ma dikk ak yéen ci